ngeen di dund màggal gii en temps réel Académie Minane ngeen di si onde ak tapis rouge si Touba jàkkaarloog ak ancienne banque islamique bi barab bi leen di yembal lépp luy meuble yi seen puce pro mobile plus qu'une puce pro la bul ko jaawale ak it seen frigo Touba 28 fii nag mooy spécialiste des marques lépp lu ngeen bëggati si frigo de qualité ak si leen seen teranga supermarket barab bi mu xéwali mi ngi si Touba jàkkaarloog kër Serigne Modou Bousso Dieng ak Serigne Mohamed Samb soldaaru Serigne Touba ci xam-xam bu sell ba màggal Touba takkal sa masque ngir sëñ bi wasu xulóobana maal jawaari lil birri wa taqwa bi jaay naasi wasalliyan asga salaatin daafiha hana wa ba'an min jaradin maaniha alayhi wal aali bi abdali salaam wa saabi wa maskani udiya salaam وزكي نفسي وزدني علما يكسب في الدارين عني هما وطاهرا قلبي وزدني عيا وعيني في طاعة يا ربي وجعل يميني كصعب في سقام ميمونة في سدة وفي رقام يا الله يا شفي المقربين والآل وصحبي وساري رجبي جد لي بالتقديم وتصديقي بحرمة المقدم صديقي وليجد بالحق والتوفيق بحرمة الموفق الفاروق ولياب سعادة دارين بحق حسمان عاق النورين ثم بحرمة إمامنا العليم هب لي في دارين زيدا يا دليم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نظمنا بحرمة الحسن والحسين ما hurmati kulli man ilaa sabin jamaam wa hurmatil baniina wal banaati wa hurmatil aali ma zawjaati wa hurmati rusdi wal anbiyaa'i wal ulamaa'i ma lawliyaa'i wa hurmatil malaa'ikil qurril kiraam wa hurmatil kaabati baytikal haraam وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المعمور يا رب وما يزور من ملك فوق سماء وجاي كل ذي هدى من ساله أو مرشد أو عابد أو ناسي wa jaayi kulli man ilayka yunsaboo habliya maa minka jamian atluboo wal takfini jumlata maa uusoo minhu sarihan bika yaa muisoo fal tañ maan bayni unaa wa baynamaa yasuuquni ilayka aysuul limaa wa kullu ma hanka yawqu ya badi fal tafruxan bayni wa bayna wasarim ana lazi aslamtu wajhiya una ilayka aziman ala an usina wazu qulubana ma'al jawari lil birri wa taqwa bi jaayi naasi وسليا أزكى صلاة دافها هنا وباء من جراد مانها علي والآلي بأبدلي سلام وزابي ومسجني وديا سلام وزك نفسي وزدني الماء يكسب في الدارين أني همام وتائرا قلبي وزدني يا وعيني في طاعة يا ربي واجعل يميني كساب في سقاء ميمونة في سدة وفي رقاء يا الله شفي المقربين والآل وصحبي وساري رجبي جد لي بالتقديم وتصديقي بحرمة المقدم صديقي وليجد بالحق والتوفيق بحرمة الموفق الفاروق ولياب سعادة دارين بحق حسمان عاق النورين ثم بحرمة إمامنا العليم هب لي في دارين زيدا يا دليم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نظمنا بحرمة الحسن والحسين ما hurmati kulli man ilaa sabin jamaam wa hurmatil baniina wal banaati wa hurmatil aali ma zawjaati ngeen di dund màggal gi en temps réel académie minan ngeen di si ond ak tapis rouge si Touba jàkkaarloog ak ancienne banque islamique bi barab bi leen di yembal lépp luy meuble yi seen puce pro mobile plus qu'une puce pro 75 la bul ko jaawale ak it seen frigo Touba 28 fii nag mooy spécialiste des marques lépp lu ngeen bëggati si frigo de qualité ak si leen seen teranga supermarket barab bi moo xéewali mi ngi si Touba jàkkaarloog kër Serigne du Bousso Dieng ak Serigne Mohamed Samb soldaaru Serigne Touba ci xam bu sell ba màggal Touba takkal sa masque ngir sëñ bi